nekk ak dirigeant kii. ci ñoom laay nekk ba heure recours ku nekk def li nga war yooyu noonu. non duñ la jàpp kaañ mais yow dañuy wax ba dañuy xool moom dañu koy xool. tey dañuy xool démb ah, si Pikine bi. que comme ni ñu koy amee sa doom mu defee fi catégorie yëpp parce que Malick catégorie yëpp fii la ko defee señor rek la fi defeewul te comme niñ koy waxee ni nga koy ñaanal convent ci foofu mu nekk muy Tëngéej SV lu ñuy nekk nekk suñu adversaire mu nekk dër bi boo xoolee loolu mooy charme bi mooy maanaam bu ñu AS Pikine war a dajeeg Tëngéej ñu toog di waxtaan xam nga moom sax bu ñuy waxtaan day day loo quoi day bàyyi gars ci biir néeg naa xam li muy xam. maa dugal ko xoo. non Malick moom wax dëgg yàlla moom bu ñuy yóbbu liste bi sax da ci bokk moom <laughs> bu ñuy bu ñuy yóbbu liste bi parce que football Sénégal moom ñëpp xam na ne moom xam nga comme ni ñu koy waxee. moom ngi safal. bi moom da mënu cee ñàkk te xam nga tënkee ñoom xam nga rek comme ni ñu koy waxee instant yii Babacar Ndiaye. na ko Modou Fall téye woon ba AS Pikine di ko jëlee championnat 2014 la ko téye nii moom aussi au passage te xam ne football Sénégal dafa metti